ñu ñëw ci njàngaleem sëriñ tuuba ci njàngale njëkk mi sëriñ tuuba xaadalahoo law maxtaar lahoo nee na nekk ci dëkkam bii njareem lay wax di taxawaalu te mu tax moo gën a màgg ci jëmm ju mu mën a doon jaamu yàlla ga gën a màgg ca moom ak fu mu ko mën a defee wér na loolu mooy ndigal yemut ak lu dul ndigal ndax bu la digalee ba keroog ngay noppi ci moom lañu lay àtte day mel ni mooy def walaw alam ñu ñëw ci bu ñaareel bi am na séeréer bu daan xëy si bis bu set ci kër sëriñ tubaa xaade la walaw maxtaar la ci njareem benn bis mu ak si bëgg a yegg ci sëriñ bi ñu nar koo téye sëriñ tubaa xaade la walaw maxtaar la ni bàyyi leen ko mu yegg bi mu agsee sëriñ bi ni ko loo doon wax mu ni ko dama dégg ñu ni lu nit baax baax ak lu mu nekk nekk sëriñ su dukkee fi yow danga ko ni tuubal te man sëriñ buy tuubal sëriñ ma koo xam ku nekk sëriñ sa baay nekk sëriñ sa maam nekk sëriñ nga dikk ñu naan la tuubal li muy tuub kon lu mu sëriñ tuuba xaadalawoo la maxtaar la woon ni ci yàlla ba mu yàgg mu ni yaram wee dof waaye nit la bi mu faatoo ñu wax ko sëriñ bi mu ni bàyyi leen ko mu dem àjjanay gàcca wér na xëy na àjjanay gàcca mooy àjjana joo xam ni jëfaloo ko lenn lu baax wala alam bi ñuy liggéey juma yi njaareem sëriñ tuba xaadaloo la maxtaaraloo daawoo sëriñ xisaa jenn radiallahu taala anu ni ko man dama bëgg nga wax ma waa kër gi koo bëgg mu jiitu ak ka cay topp wala mbay géy ak moore jang andi leen ci sëriñ tuba xaadaloo lahu maxtaaraloo serigne touba xaade la wala maxtaar la dindi ñaari turki jox leen ni leen sol leen ko ñu sol ko dikk di liggéey lii danañu ci jàngi lu bari te mooy képp koy def loo dara waroo jekki-jekki di ko ko def loo te sëraloo ab xolam ba mu sedd fi mu ne sëriñ bi xamoon na bu wér ni ay yéreem moo gënal taalubee ñu lu ñu mën a am ci moom moo tax mu jox leen ko ba tey sëriñ saa radiallahu taala anhu ndegam liggéey bi ci loxoom la tege lépp lu muy def lu ci jëm ci moom la koy jaare waaye du ko jaare faneen muy andi ak jooyoo ba tey li mu ko wax ci jiital kenn teg ca kenn mënta ñàkk ci liggéey bu mu mën a doon ndax mooy tax du taxaw bu ñu seetloo itam danañu xam ni bu xasee ëpp ñaar dana bari lool lu muy waral yeneen walaw alam ñoo ci njàngalem ñeenteel bi ku ñuy wax fara jaañ na ndar la sëriñ tuba xaade la wala maxtaar la da ko woo ba mu ñëw mu ni ko liggéey boobu ci penc mi laa bëgg nga def ci sa wàll wér na sëriñ tuba xaade la wala maxtaar la mas naa wax guddi gàmmu dee leen ko daje fa jàkka ja di ko fa defe wér na lool sëriñ tuba xaade la wala maxtaar la nee na ñettu bantu yamu goroon ca gabon gàddu ñaar ña womat benn ba dikk defar ko jublu ci jàkk bi ma koy defar kilifa googee mi ngi may seen bi ma noppee ndaw ñëw ni ma fii jàkk xew fi wax keneen ni ko fobal bant yooyu wàcce ko nee ba mu ko defee daa di dem fa muy tuure ndox sànni ko fa naqar wa ma ca am taxna mu doon bëgg a waral mbir waaye rasulullahi salallahu taala alayhi bi alihi wasabi wasallama sama xarit ba ni ma bàyyi ko danaa la ko fay fu leen jige te duñ ko mën a saafara ba tey nee na bant yooyee ma goroon mooy sóorool yi sooxa li fi ma yumba ma saa qalbiya wa ala jamba nee na mooy mbirum ñaari sóorool yi nee na ba tey du jàkka du jumaa ak pay wér na su ko defee kii danañu déggee ci waxam ni li mu dégg ci waxeenu sëriñ bi la wax waaye waxin wi bu ñu ko booleeg yeneen waxtaan man koo xam bu wér waxoon naa itam ni sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaar loxo buy wax ñu bari la fay fekk bu ñu demee ku nekk na nga mën a waxe ngay nettale la nga takk itam ngay mën a wax loolu li ciy firnde rek mooy nettali bii may bëgg a indi insha allahu taala fi mu ne gàtt na lool waaye am na ci waxtaan wu mu nekk wu gudd képp ku waxtaane Sëriñ Tuuba xaada la wala maxtaar hitteel yu mel noonu war na koy xàmmee man nag lu ma man ci jéem a dajale ak a leeral yu mel noonu waaye duma bàyyi wenn waxtaan mu dem te fekk mu am tuuti wuute ak weneen walla alam ñu ñëw ci njàngaleem juróom-ñaareel bi Sëriñ Tuuba xaada la wala maxtaar la nee na ci jumaay njaareem guɗon amutur najatu ahalil ardi wa misbahu ahli sama'i lay tudd wér na lool najatu ahalil ardi muccug waa suuf si misbaahu ahlil shamaa'i lamp waa osamaan yi walaw alam keroog bi mu sottee daa wax yelli ni ko waxal kookee la waxoon ni la fii jàkk xew fi demal nga ni ko na ñëw dindi gii fi nekk tey yelli ni ko gi kenn mënu ci dara sëriñ bi ni ko yàq nañu fi mbaarum gàttax toj fi tabax nañu dindi gii fi nekk tey wér na am na bis balees doon dikk njeereem sëriñ bàlla ak sëriñ mohamadu mustapha radiallahu taala anu wax ni nañu ko yóbbu fa jumaaja yaatu na fala mbooloo ma di xaj bañu ko defee dikk wax ko sëriñ tuuba xaadale wala maxtaarloxoo mu ni fu mu toll ñu ni ko ca jumaaja la nekk sëriñ bi ni ci ganwet ñu ni ko ca wet gëfeete ak sëriñ ibrahima sar radiallahu taala anhu sëriñ bi ni dem leen ak moom fa wetu gànnaar ga bi sëriñ bi ñëwee duggul ca jumaaja daa toog ca biti ca suuf sa ni bismillahi na wax li muy wax ba lees tàmbali lu mu wax sëriñ mohamadou mustapha radiallahu taala anhu tontu sëriñ bàlla coro di firi sëriñ bi naan noonu la noonu la ba mu noppi benn baat waxu koog moom wér na